saa soo leen accès si foire bii di gàttandu màggal Touba ñëw leen ngeen visiter Sandu Cash Deal fii nag mbokk mi mën yi di taxoon ngeen di jaaxle di jéggaani leneen dem sax bay tay leen seen i bagage rawat na lii di or ñu leen si nax déedéet fii du demee noonu boo ñëwee ñu jàppale la teg la si yoon gindi la jox la xaalis boo matalee ñu remboursé. Je m'appelle Je suis le responsable d'agence de Cash Deal Touba. boo déggee nag Cash Deal ça va te un peu que c'est c'est une filiale la vente boo déggee vente à rémère mooy lan nit ki dafay ñëw nous avons deux produits phares actuellement qui qui marchent su le terrain su le marché qui s'appelle Gare d'Or et Cacheto avec le Gare d'Or tu as un besoin da nga ñëw indil say bijoux en or boo indee bijoux bi ñu xayma ko jox la ci xaalis nga dem gérer sa business boo paree ñëwaat fay ñu joxaat la say bis. bi moo gën a wóor sax. bi moo gën a wóor ñu noonu xam nga da ngay dem tayle boo ko taylee bijouterie bi mu ne si def leneen leneen loo xam ne instant yi bokk ci. wala nga ñëw xaw a mu jaay ko te xam nga affaire yi c' pas très bien précisé dans les xam nga y avait pas de terme de référence très clair mais avec Cash Deal c' un contrat qui vous avec Cash Deal mhm. tu amènes tes bijoux on l' xool ñaata nga ci mën a am ñu jox la ko ci un mois ba ci six mois client moom mooy définir nga respecté yow naan boo ñëwee boo nee ci un mois ñu defal benn contrat un mois nga ñëw ñu jox la sa xaalis nga dem gérer sa business yam ñu foofu de bu dee tamit si wàllum oto nga bëgg koo taylee nga amoon jafe-jafe yu jàmp boo ñëwee tamit ñu defalal tamit noonu rek bis bii nii moom laa fas yéene commercialiser tey jii nii cash auto parce que c'est produit boo a

jël sa bien indi ko cash deal mhm. teg ko foofu noonu ñu jox la ci xaalis nga dem gérer sa business ñëwaat fay jëlaat tamit sa def nii dina nangu na ko dina na ko mbirum jënd ak la jënd ak jaay la ma ni mbokk yi lu bees sàq moo agsi fii si biim réew yéen waa Touba waa région de Diourbel waa Sénégal bu leen jaaxleeti taamu leen cash muy filiale bu Cofinan bu ngeen agsee fii si foire bi ñu wan leen toutes les formalités ngir nag bu ngeen amatee jafe-jafe lépp day jeex ba faaw